qu'a joué Pod. Pod. waaw. ce point de vue ci li dal Mariem. ouais bon Mariem c'est c'est notre sœur ah c'est notre sœur c'est notre collègue en même temps bon dañ koy soutenir ah franchement di ko lancé un message de soutien par rapport à tout ce qui lui arrive ah je pense que bon su ma su ma xoolee lii euh, sama xol day xaw a tooy tuuti parce que en fait tu te dis une personne. jub di liggéey pour faire plaisir aux gens di espérer quelque chose en retour en fait si ces gens la ñoo lay teg leen loo xamante ne muy wàllum lu lay lu lay dépression loo wala lu lay teg pression mm. donc du coup des fois je me dis il faut que nit ñi des fois ñuy xalaataat bu baax suñu comportement même si tey on peut faire un petit commentaire ci benn nit alors que commentaire boobu noonu yow doo xam ban impact. impact lay def ci nit ki ci nit ki. Mm, mm, mm. alors que tey y' a beaucoup de nos du ci moom kese am na ñeneen ñoo xam te ni ñu ngi siy en silence peut-être si am ñenn ñu fës am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi leen di gaañ benn commentaire bu ndaw sur YouTube. bu ndaw mun na tere nit ki nelaw alors que yow doo si xam dara nga dem nga tëdd quoi bon en fait. Mame Balla Laye très rapidement un petit commentaire sur ce qui se passe avec euh, Halima Gadj rapidement. Euh, moi, je me dis que j'ai pas eu la chance de faire sa rencontre, mais ça veut dire que ça, il faut, je lance un appel à la ministre de, ministre de la Culture pour que mu jéem a xool comment faire pour venir à son aide parce que métti na trop une arti une actrice hors pair talentueux qui a eu la chance bégal sénégalais et tout ça. comme li ko Pod waxee léegi il y a des gens qui souffrent en silence ci dans la dans la comédie sénégalaise acteurs yu bëri ñoo ngi souffrir loo xam ni. ñu la ko expliquer quoi man je me dis que loolu lépp culture bi moo moo doxul comme ni mu war a doxee ko parce que cas ko dal nii en fait bu ñu toogee ba léegi di ci waxtaan te ministre de la culture jël ay initiative dem Côte d'Ivoire fekk ko fa répatrier ko indi ko Sénégal ñu dox ci moom lu ci war ah man di me dis que c'est c'est c'est grave quoi en fait quoi. lan la ñu culture mënal quoi en fait je me je me pose toujours la question. jàppale ko de fi mu nekk nii war na. maam c'est culture moo ko war a jug. gérer ko parce que bu dee benn fan wala ñaari fan elle a fait a fait quelque chose pour le Sénégal c'est une actrice hors pair kenn weranteetu ko elle a la chance joué fi film boo xam ni ba tey dañ ciy nekk di si wax. maîtresse d'un homme marié cas yu mel nii bu ko dalee pour man c'est le gouvernement du Sénégal moo war a jug impacté ko dem dog ko pas ñu koy divulguer dans les réseaux sociaux toujours di ci wax ku nekk di si commentaire ko en fait parce que commentaire dafa doy waar ay mboqam sonn nañu ñu ko bëgg sonn nañu actuellement nii man je lance un appel. si moom président bi dee dégg mu dem jël ji ko indi ko ñu mettre ko dans de bonnes dans de très bonnes conditions pour mu revenir à ses esprits quoi parce que on a besoin d'elle aussi c'est ça le message. jërëjëf jërëjëf Laye maam. waaw man moom euh, fi pour rebondir rek laay wax ah. parce que y a beaucoup de commentaires sur les réseaux yoo xamante ne tey jii bu fekkente ne yow amoon dëgër laay rek mën na la destabiliser quoi donc li may wax rek acteur bi tey jii. moom day garder ses peines et souffrances pour mën pour jéem a bégal nit ñi donc acteur au de la dacteur bi nga nekk tey jii nit yaay nga quoi mën nañ la def ay commentaires yoo xamante ne tey jii mun na la toucher comme li jëm James waxoon rek mu ne si tu ne vois pas mes larmes c' est parce qu' elles en l' intérieur quoi donc nit ñi euh, voilà peut-être am na loo xamante ne tey blessé na ko ba mu atteindre ko fii tey. li may ñaan rek mooy ay mbokkam ak ñi nga xamante ni ñoo ko jege jàppale ko pour mu génn ci problème bi. c'est vrai que lu ñun lu ñuy lu ñuy lu ñuy soofantal la ah, dans la la société bi ñu dëkk mooy boo ne nit dafa am dépression wala da nga am stress wala da nga am angoisse dañ naan la non c'est pas possible. non mais c'est que sénégalais je pense moo gëmul dépression. amul luy dépression gëmul gëmul dépression et je pense que avec elle. wane woon na ko depuis ah lii peut-être fin bi la limite bi la rek dafa dem ba la benn guddoo bi la rek mais depuis ñu ngi doon gis ne que ça n'allait pas et nit ñi doon ko critiquer ñi di ko reetaan ñi defee tout je pense que bu ñu ko waroon jàppale war nañ ko jàppale